rek dañuy nital ba mu leer nañ ji ñu sant baax ci tawfiix ji mhm. moom boo xoolee fim mu fi mu jeexal rek mhm. dafa mel ne sëriñ bi mhm. ci aljihaadu ruuxi bi nga xam ne da ko def ci xasida yi te muy côté baatin bi foofu ñi doon bind ay xasaayid ñi ci daje woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa dañoo amoon ay secret ak ay leer ci seen mbind ya ginnaaw bi itam aqtaab yi am ay dog yi ay ahzaabu saalihin ay ahzaab ak awraat ak ay xasaayid yoo xam ne sax eh, daf daa am eh, ay asraar ak anwaar waaye bi sëriñ bi ñëwee mboolem fuñ daa jaar suñu borom subhaanahu wa taala ba jukki ci moom ay xewal fuñ daa jaar salaa salaam dafa jaar ba ñoom ñëpp maanaam mu ŋacc li ñu yor bokk na ci li mm-hmm. sëriñ bi ñu def rek dafa wax ne ku la nga rafet la rek laa bokk ak yow daa ku ne la nga rafet la laa bokk ak yow mm-hmm. fi boo dee xool mbindi sëriñ bi eh, lu mel ne kanzul muhtadina mm-hmm. ak fawzul mutin ak adduru thamin maanaam salawaatul aqtaab yi gën a ràññeeku nga xam ne ci tiir yi wuute wuute la nekkoon nga xam ne mën ngaa yor ay bibliothèque yu bari ay këgg yu bari nga yër ko mm-hmm. fenn fu nekk ak secret ba fa muy ne mm-hmm. yooyu yëpp sëriñ bi dafa la ñuy wax dafa da ko def dañuy mm-hmm. dafa fekk yu sori te taqali ko mu mu def ko ci ay mbind ay fawzul mutiix nga xam ne li mu njëkk a def rek mooy mboolem li awliya yi ak saalixiin yi baax la lépp bi ku suñu borom mayee ndax nee na suñu borom may na ko nusuus yi maanaam téere xam-xam yu am njëriñ yi ak anwaar yi ak ahzaab yi bi mu ko jébbalee lislaam la ko jébbalaale li ci biir gi lépp sëriñ bi juñu na moo tax fu lu baax baaxee da cee am ab cër loolu moo tax boo xoolee ci wàllu jihaad ruuxi bi rek lim tënk ci ay dog yi yiw rek ci biir mbindam yi rek loolu néewaana nga gis ko fenn fu dut ci ay mbindam bi mu leen nangulee liñ doon ba noppi ci la dem nag ci xadaru suñu borom maanaam jongural ko boppam maanaam xeeti waxiit woo xam ne nitu yàlla mas na ko wax suñu borom subhanahu wa taala ba mu jox ko dara wax ci ko gën a dal gën koo yaru gën koo yaatu xemmemteef maanaam fu ne nu ne nu ne waxee na ko waxee na ko xam nga fatah xasaid rabbi fatihat lii xam nga kenn ku ma sa am xirug di ko di ko di ko ñaan magasin yi mu am maanaam di ko may ma sa magasin yi nga am loolu kenn kenn mësu ko ko wax te te dafa mujj yàgg te dafa suñu borom ne ko yi nga may defal nii daal damaa dem ba xam ne yow akramte nii ikraama man macha faal waaw damaa xam ne comme yow kenn du téye sa loxo te lépp yaa ko moom moo tax ma ñaan la tiraangay koo xam ne ku moom lu moom la te kenn du téye loxoom moo tax wa kullu ma aradtuhu min kan fial lépp lu ma bëgg ci yow rek mu am yaquudu lii kun fa yakunu xaaji minka bila xeqdin wala taxaaji daan ne ko xam nga fi ne su ma ñëwoon fii ci jataay bi Sëriñ Saalihu bi lu mu baax baax baax baax su ma ne ko yaaram sa kaala gi laa bëggoon a barkeloo ngir sëriñ bi dama day daanu jox ma ko ma ne ko waaye boo boo ci tegaatoon maxtu mi di ma jël mu mu daaj ko ci teg ma ne ko ah, yaaram de boo ci boole woon sa jaaru bi ma jël mu teg ko ci ma mu ne ko mbubi nag bu yàggee lu mu baax a baax rek ma xaw ko jot <laughs> moo tax mu ne mu ne nag suñu borom ginnaaw ginaaw moom mooy ki nga xam ne loo ko laaj du ne la lu ni du tax <laughs> nee tam moo tax mu ne yaquulu lii kun fa yakunu xaaji <laughs> minka bila xeqdin wala taxaaji maanaam day ñëw de dugg ci biir magasin bi ne ko léeg laa soxla mu ne ko jëlal muy wàññi ko ne léeg-léeg bëggaat ko mu ne ko jëlal mu ne ko tey far ci boole lee mu ne ko jëlal mu ne te nga ramas lépp far jox ma te nee na suñu borom du ko ci mere te doon ko lu foo ko jëmee xam nga kooku xeetu xam gi mu xam suñu borom moo tax mu laaj ko ci xasayid si mu tax am na baat bu am solo mu wax mu ne ci xasida yi rek lañ mën a xame sëriñ bi ndax ci xasida yi ci la ci ci lañ xamee maraaxil yi sëñ bi jaar mm-hmm. ci lañ xamee ay sañ-sañam ci lañ xamee digganteem ak boromam ci lañ xame itam li ko yàlla may mm-hmm. ndax ci biir xasida yi lu ne wax na ko ci mm-hmm. bi haadihi alxurufi waj'alha xayra maaruf am na am na xasida yoo xam ne dafa ne ko lu nit di wute lu baax mhm. lu nit di wute lu baax defal ma xasida gi muy muy muy muy xayra maaruf ci loola wajal taalifi xayaatan li shariatika wal xaqiqa maanaam nga xam ne aar sharia ak xaqiqa mhm. am na ay taalif yoo xam ne spécial dañoo ñëw ngir aar sharia ak xaqiqa mhm. na xasida yoo xam ne dañoo ñëw ngir aar maanaam jullit ñi fépp fu ñu mën a ne am na ay mbindam sax yoo xam ne sekkar yi ak leer yi daf koy jox addiya nga xam ne yonent bi salaa salaam eh, xitma la boo xam ne maanaam laazamat maa rawdati nabi sallallahu alayhi wa sallam te loolu am mbirum biir la moo xam ne diggante mook yonent bi salaa salaam la boo xam ne ay sekkare la yoo xam ne moo koy root di ko taataan ci diggante mag boromam di ko jox addiya ci rawdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu defa dem nga xam ne bu taalibi jàng maanaam leer gaa ngay sotti di dem ak ñëw di yàlla diggante dongo yi ak barab yontu bi am na ci xaside yoo xam ne soo soo soo koy jàngee xam nga waa malaul ala mm-hmm. dañoo wax ne xeeti jaamu yàlla yi ngay gis yëpp su fekkente ne ab ruux da koy def mm-hmm. su demee bay waaj génn àddina su ko malakul mawti dikkalee te fekk muy ku yàlla sange ay cëram malakul mawti du am fa mu jaar léegi-léegi dañuy naxe malakul mawti ci suñu borom daf koy wax ne ko jaam boobu tëdd foofu de am na lu not ci jëmmam ji xeetu tuur ci sama tur yi wala alquran wala xeeti xasida wala am na lu not daal nit koo xam ne jàpp na xasida jaalibati jàng ko jàng ko ba mu fees del yaram bi wala koo xam ne jàpp na alxuraan jàng ko jàng fees dell wala koo xam ne jël na tur yàlla jàng ko jàng ko jàng ba yaram fees dell ba nga xam ne xeet googu dafay bond ca kaw su ko defee suñu borom daf koy wax nag dellul malawul ala fa fa fa leer ga doon jolli dafa fa duggi nga tànk fa xeet ga su ko defee day jàpp ne mhm. maanaam maanaam lii mu doon def la su ko defee bu bu róogi téere rek nga kaw nga këf nga këf ko nga xam ne xeetu xasida gu ne am na lu muy xeeñ bushra bi ci sëriñ bi noppee malawul ala wabtadal biha malawul ala nga xam ne malawul ala dañ ko doon jëkkante te yow li ci sëriñ bi def kenn xamu ni mu toll nga xam ah wallahi alazim waaw nga xam ne boo xoolee xasida yi moom waxuma la jàng gi waaye dafa wax ne kullu saidin mhm. qad raa qasaidi bil itiqaadi faaza bil xasaidi maanaam nit koo xam ne danga ngaa fas rek mhm. xaside yi li ci nekk gëm baatin bi mhm. maanaam soo ko téyee nii rek te jàngagoo yaa ngi góob yaa ngi góob nga xam ne boo jàngee kenn xamu ni muy toll su defee loolu moo tax eh, daanaka eh, baatinu sëriñ bi ak secret yoon wi ak li ñuy ci diggante sëriñ bi akub taalibe loolu li ci ëpp solo ci ab donga maanaam ñu ngi bàyyi ko ci digganteem ak xasida yi loolu moo tax am na ci ay mbind ni ko sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ Saalihu leerale sëriñ bi am na ay bicharaat ay bégle yoo xam ne def na ko ci xasida yoo xam ne la arif billahi bi doon wax ak wax ak wax boroomam naan ko sa mbaax gi de su ma ko waxoon Eh, fekk eh, dafa mel na suñu borom dafa waxan waxanteeg benn aarif billaahi ne ko ni ni nga mel suma ko waxoon nit ñi duñ la topp mu ne ko ah yow itam sa mbaax gi bu ma ko xamaloon nit ñi kenn dut la jaamu <laughs> ndax sa yërmaan rek. li nga mën a mayeek li nga mën a jéggaleek yooyu su ma leen ko su ma su ma ci dalaloon seen xel kenn dut la jàmm <laughs> nga xam ne suñu suñu suñu suñu borom daal koy door a wax ne ko kon baax na kon ne kenn mën a téye <laughs> secret waaye sëriñ bi def na ci xaside yi loo xam ne bu buñ ko wuññi woon xam naa ne moom ñëpp dañuy nelaw moom ndax <laughs> am na benn bi benn benn benn dog bu ma gis ci eh, ci ci ci ci dala elul xeeraat te sëriñ bi lépp lu baax wax na ko ndax fi na dalaa ilu xeeraat junj na ko ak yeneen yeneen yoo xam ne uh-huh. ay dog la yu fi jiitu woon uh-huh. dalay ilu xeeraat gis naa ci benn eh, ñu wax ne uh-huh. loolu ab xadis la sax guddik ajjuma boo julli wala bisu ajjuma rek boo ci jullee ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam téeméer yoon rek téeméer yoon danañ la bindal genn leer goo xam ne boo ko séddale woon bis penc ñëpp ku ne dana cam waaye yooyu nag yu yu yu gën a xóot yooyu secret yoo xam ne sëñ bi da ciy wax ne ko mhm. ba nga tàmbalee bind ak ba nga bindagul ba ba nga bindee ba noppi mhm. mboolem lu lu lu am lu ñu lim ci kaw suuf ak nga xam ne xeetu salaatu gu ne nga xam ne fees na àddina ak alaxira ci benn xasite mu baama ko ci junni yoon mhm. nga xam ne xasite googu boo ko jàngee man nga ne bu la neexee yéefar yéeg jullit ñi ñëpp genn xasite kese mën nañ caa dund yomal xeem ñëpp tëdd nelaw kon kon kon sëriñ bi dimension moom kenn xamu ko xanaa kay moom dañuy dimbalee suñ bopp ci jéem a góorgóorlu tënku ci charia di góorgóorlu di ko liggéey la yàlla ndax sëriñ mu tax dafa ne nañ jaam yàlla léegi ko sëriñ bi mm-hmm. waaye xel mu dal moom ci sëriñ bi la nekk moom dëgg la te lépp mi ko jaaree ci xasida yi sëriñ Sëñ Fall ñu koy bu baax a baax waa sëñ Sall bisimilah